الهدي ونصلي ونسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله الذي أنزل عليه القرآن هدى ورحمة ونورا للعالمين عليه وعلى جميع أصحابه أفضل الصلاة والسلام mbokki jullit yi amati nañu mbégte lool gi teew ci seen kanam bi fi yëkkati kàddu ci jotaay bii nga xam ne mooy suñu mooy suñu ñaar fukki jotaay ak juróom ci wàllum eh, bis bi nga xam ne mbootaay gi daañu ko def at bu ne ci bokk ñu wuutu fi nag eh, ñaari sëriñ yu mag di ñoo xam ni bokk nañ ñi njëkk ubbi daara ji kenn ki di a Cheikh Moubarak Lo mi nga xam ne moo jiite école yi maanaam xudaa ci Sénégal ak ki nga xam ne tey mooy Cheikh Youssoufa Mbaye di xalifatu al usatu bayaaniya di ah, xalifatu maam Cheikh Mbaye ci Louga ñoom kàddu gi ñoo ko moom seen tur lañ ma ko joxe nag ndax loo xam ne mën ñu koo def ma jéem dina ma man ñu yëkkati nuyoo bi nag di ko jox ki nga xam ne moo nekk dëkk bi di Cheikh Alhaji Xabbaan Diop ak mbooleem njabootu eh, maam Moxtaar Ndumbe Diop di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi waa kooku yëpp di leen sant ànd bu yàgg bi tarafet di nuyu itam ki nga xam ne mooy jiital daara yi tey di ak Cheikh Moxtaar Naar di nuyu itam mbokki kay diine yi fi ne ci dëkk bi mu mel ne di kër alhaaji eh, Mokhtar Fall di nuyu waa kër Ahmad Diaw Galaay di nuyu waa kër alhaaji Mbay di waa guudi nga xam ni rahmatullaahi alayhi bàyyi Modou Dia moo leen fi bàyyi ñu wuutu ko ci liggéey bi nga xam ne moom lañ faax liggéey bi moom la nekkoon di ko liggéey bi fekk guudi di dem ñi nga xam ni ñoo jàppale ci sëriñ bi ci liggéey bi di nuyu ki nga xam ne itam mooy maire dëkk bi di Papa Diop di nuyu conseiller économique bi fi nekk muy soxna Njaa Njaay di nuyu itam dëkk yi nga xam ne ñooy war kook yépp di ñaan yàlla ñi fi nekk yàlla yàgg leen fi lool ñi fi bàyyi ko yàlla yóbbu leen àjjana yi gën a kawe kàddu gi nag nañ ko am defe rek mooy eh, xamal nit ñi li xam ni moo tax ñu mooy wàllu président bi ci euh, mbootaay gi nga xam ne mooy mbootaay ñu génne woon daara yi da ca jëkk mooy léegi oustaz Mouhamadou wax na ci muy ustaaru daara ji kooku dafa naa duñ daañ laal tuuti waaye duñ ci duñ ci xaabaabal daara yi kooku ji xam ngeen ni ren la am juróom-ñaari fukki at ak juróom benn muy liggéey boo xam ki ma tudd léegi ci gannaaw muy sëñ Youssou Mbaye fi nekkal maam Cheikh Mbaye maamam moo ko jox moo joxe woon ndigal bi ñëw fi daara yu kokki ji di fi liggéey tàmbalee fi 1939 tàmbalee liggéey bi ci benn taalibe bi ñuy wax Ibrahima Guèye doon ab jaar jarbaat jarbaat ci moom yàlla ko yàlla yërëm ba liggéey bi tollu fi ak fii lay ci loxoy Cheikh Ahmadou Moukhtar bu ko defee sëñ Ahmad sëñ sëñ ah, Cheikh Ahmadou Sakhir nag jël liggéey bi avant mu fi jóge ay at yu bare bari bu daanu ko dégg nu war cee taxaw kooku daañu ci ñëw bu ñuy jeexal insha allah ñii nga xam ne ñoo woote bis bii nag muy mbootaay gi jógee ci daaray Koki ji woote wuñ ko ngir ab siyaar comme ni ñu koy waxee waaye lamiñu nit ñi moo tàmm loolu dañ koy woote ngir dimbali daaray Koki ji loolu rek mooy sabab bi la ko wundi itam mooy daa nañ ko fa wax xam ngeen dafa amoon ñoo xam ne ci dund sëñ Ahmad Saxiir ay nit ñu baax lañu woon dëkk ci biir réew mi seen njiit ji rahmatullahi alayhi alaaji Aatu Xulle moom moomee moo ma sa ñëw fii danaa bi mu indee ay doomam fii ci daara ji ñaan sëñ bi ni ko man de damaa bëgg sa liggéey bii ngay liggéey nga may ma ma bay ci sama wàll sama waar ndax liggéeyu yàlla boo ci bay boo ci liggéey da nga ciy nekk waaye waar ngay am ndax liggéey bu jeex dafa yaatu lool mënu ko ci naka mënu ko dama bëgg nga bàyyi ma may wër Sénégal ak fa ma dem lu ma am andil la dimbale ko jox la nga dimbali dimbali ko ci dongo yi mun ko bisimilah loolee mooy sababu bi nga xamee ne ñun dem nañu ba nga xamante ni yàlla def na ñu jóge ci daara ji gis ni loolee ñuy gis bàyyi ab daan ko def ak i ak i ak i ak i ak i àndandoom ñuy loola ñun la gën a war bien que léegi ba léegi ñu nga ca loola ndax alaaji alaaji gay alaaji gay mi ngi fi moo fi des yàlla ko fi yàlla ñoom nga ànd loolu ñëpp yàlla def dem nañu ñu wàcc ñëw ñu ñëw ci sëriñ bi ni ko ñun de dañoo bëgg ñun tam jël suñu wàll gannaaw ñu daara ji nekkoon ñu def ak mbootaay boo xam ne ji dañuy ñëw di yàppale ci daara ci liggéey bi bind suñuy kayit defar suñuy statut ba mu rafet ñu ñëw jàng ko ñu kanam mu dégg ba mu ko defee mu jóg ni alhamdulilahi ba nga xamante ni daara ji am na doom yu mel ne yéen depuis loolu ba léegi nag ñaar fukki at la ak juróom ci ren at bu ne itam ñu war a daje fi ngir ndimbal yu ñu am jëlee ko ci bopp jëlee ko ci mbokki jullit yi ñu andi ko fii ji lii mooy sababu bis bii bu ko defee nag laf ab siyaare moom maanaam léegi sëñ ma saxir la daan wax lan daan wax man du ma ab sëriñ du ma sëriñu kenn ci yéen du kenn ci yéen xam ne ci daan fii ñëw ak noo mën a mel da nga su sumb ca biti boo noppee nga dem ñibbi sa kër bàyyi sa bàyyi yabal la xam lay yabal nga nekk nga nekk la nga war a la nga war a nekk wala la mu bëgg nga nekk man bu gën ñëw man di ma ñaan wér bu gën ñëw ci man di jébbu lii la Cheikh Ahmad sax daan la daan wax moo tax mbir mi kon bis bi bisu indi ay ndimbal la naa bu wax taalib fu mu am day mooy xëy na juuf ñii rek ndax bàyyam wax na ko fi léegi daanaka fa ne comme bi doogu la ko yëkkati moom dong laa xam ci koo xam ne gis nañ moom ab taal xanaa taal leen ci nekk dafa ne boo noppee nga la mu la bëgg nga nekk ko nga nekk bëggee nga nekk di ñaan murit xaajir lu mu bëgg nekk lool. bu ko defee nag mbootaay gi ni ko bindee yaatu na léegi léegi dem na ba màgg ba am set ONG dem na ba léegi noo ngi xalaat def fondation Cheikh Ahmad Sakhir am na ci biir li ñuy wax waqfu yooyu yëpp daañu ci ñëwaat. am na ñu ko yor daañu ko wax insha allah te yooyu yëpp liggéey la yoo xam ne dañ koy def ngir daara ji ngir dañoo seet ni liggéey bi ni mu demee ni mu ree ak niñ fi nekkee ñun ñoom ñu magoon dem nañu suñ bàyyee dem nañu suñ maam yi dem nañu noo fi des te insha allah dañ fiy jógee te liggéey liggéey bi itam addina day dox ñu seet ni war nañoo am lu ñu samp lu dëgër loo xam ne di buñ lu gisatul mu nekk fi di mën a dimbali sëriñ bi ci liggéeyu daara ji lii moo tax yooyu mu wax yëpp ñu ñu kare ñu kareyeewu bu ko defee nag saa yoo xamante ne ñoo ngi ñëw féetal danañu def ay ay mandarga ay lettre ak yu bëree bëri jox ko nit ñi kon donc yéen nit ñi nga xam ne ñëw ngeen wuy si de wuy ñu tey ak ñi nga xam ne ñëwuñu ak fu mën a jógee ñoo ngeen sant bu baax a baax a baax ndax liggéey bi doon ñun rek doole waaye yéen insa waaye yéen ci kàttanu yàlla wax dëgg yàlla noo ngeen di sant sëriñ baa ngeen di sant dong yaa ngeen di sant ci seen taxawaay ak faay ma nekk nag moo xam ci biir réew mi la ak buti bitim réew noonu laa ko mën a tudd ngir ma bañ tudd kenn boo defee nag ñi nga xam ne ñoo laa bokkal liggéey bi muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbootaay bi dañu war xam na nu li ñu war xam na nu dañ ko xam baax a baax ndax Cheikh Ahmad Saxir kat nit ma masaa ñoo ni ko waaw yow sa gannaaw liggéey bii boo koy mu ni gees gis ay taalibe yu tax ci gannaaw mu ni ko xanaa ñii mu ko xanaa ñii ñoo mooy moo mooy ñun ñi tey moo tax ñu war cee taxaw baax a baax te itam ku ne nañ ci taxawee nee sa yite ñi sa ñi ne sa mbir di yéwén man loolu loolu xam naa ko te ba tey itam ñoo xam ne maa ñoom bokk nañu jëf ci mbir moom te it man sama bi jëm man mii Cheikh Amadou Sakhir bi ma xamante ni mujj naa koo gis si kokki muy bisu ajuma ca ngoon mu bisu ajuma wax dañoo yendu maa ngi moom dañoo yendu mu di ma wax may bind ci bañ demee ba ci bokk na ci loolu bind ci moom day mu ne ma daara ji kat maa ngi lay xamal ni moo dugg daara ji kenn moomu ko ah kay xanaa donga bu ñëw donga bu ñëw nangoo jàng nangu fee toog wala soxna su fi ñëw nangu fee toog ànd ak ab sëriñam di jàngale bu ko defee nag kon tey te samp la boo xam ne bii ilaa yéen mi di du fi du lii da lii daana na ko wax naa noonu demee dañu xam ne dañu tam wóor ni lii am na dañ ci gën a xaar suñu tànk du bëy ñu xale yi bu baax a baax ci jàpp liggéey man na fi nekkoon ca at yii ci weesu de wax yàlla li gis léegi doy na ma doy na ma baax a baax a baax maa ngi sant ki nga xam ne mooy secrétaire général bi muy muy wayal ak équipe bi nga xam ne ñoo ko jàppale xam ne ñoo nekk fu mu fu ñu nekk ci yi fu yi ak bitim réew ak biir ak biir réew ak biir réew mi maa ngi di maa ngi di xamal ne man wax dëgg yàlla noppal baax a baax itam ñi te nekkoon fii itam ñi nga xam ne ñoom féetewoon ak mag ak ñi nga xam ne ah, maa leen féete mag te ñu nekk ci yeneen liggéey ci biir mbootaay gi dem wax dëgg yàlla nopp nañ baax kon donc xale yi yéen ñi nga xam ne yéen nekk yëf yi ngànk ko fa jotaakum laa ana xeeram e eh, ba loolu wéyee nag ñu ñëw ci loo xam li mbirum jamono la yàlla bi def du fi jógee xam ngeen kilifa gu baax daana teew fii muy eh, suñu kilifa di Cheikh di Cheikh ah, ah, Modou ah, Madické Seck doomi bàyyi Alpha Seck Mamadou Alpha Seck ca Cenaba xam ngeen dafa ñu liggéey ci at mi di woon koo xam ne kii jotaay bii moo ko daa jeexal ci ay ñaar bàyyi ko na fi yàlla na ko yàlla yërëm dugal ah, dugal ah, dugal ko àjjana ah, yàlla dul fa daw si naka noonu xam ngeen ne bu yàggul ci ginnaaw itam am na góor gu baax bu daan teew bu ñu wax alaaji kaatam karim Touré nekkoon ci sëñ bi dimb ak ñeen ñoo xam ne ci mbootaay gi lañ bokkoon ak ñoo xam ne daan jàpp ci daara yi ñoo ñëpp dem nañu yàlla yàlla yàlla yërëm yàlla aji leen ci àgg leen ci àjjana fa daw si ñu ñëpp yéen xam lu ñu bëgg wax loolu rek ngeen xam ne lañu fàttaliwuñ ci kenn képp koo xam ne kii yaa ngi ciy jëf ak nu mën a mel rek eh, bu la xamee buñ la xamul nga bàyyi ko fi ñu ngi lay ñaanal yàlla yóbbul àjjana ngeen xamal ni itam jotaay bii itam am na fexe eh, lu fi am mooy am na fi góor eh, ku baax ñuy wax koo xam ne kii premier ministre di boppam yitte yitte gu mu jox daara yi rakam mi ngi fi kooku bokkal ndey ak baay fi la fanaan xam naa fan la ci ñëw pour wax leen léegi gouvernement bi la ñu ngi leen sant bu baax ci turu par bu mbootaay bi ak ci turu mbootaay bi di leen sant bu baax seen liggéey Macky Sall dem bu neex yàlla dina fi yónnee farata ñu ngi koy sant di sant mboolem ñi nga xam ne ci dëkk bi surtout waa dëkk bi rawatina waa dëkk bi nga xam ne nday daara yeeg bàyyi daara yeeg ñëpp ñu commencé woon 1930 ba léegi 1939 ba léegi ànd ak Cheikh Amadou Sakhir ànd ak Cheikh Mokhtar ñun ñi ñu nekkoon seen loxo ñuy dundal dina saaf dina defal lépp ñu ngeen amuñu seenu pay di cité ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy njabootu maam eh, Baye Baye maam Baye Kébé ak waa dëkk bi yëpp ndax ñooñu ñoo doon taalibe maam Cheikh Mbaye jàpp nañ daal yu baax waa kër suñ waa kër soxna waa dañuy fi ak ñeneen ak ñeneen yu di ñaan yàlla kokk yàlla na ko yàlla gën a ji yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla gën a jàpp daal yi yàlla na ko yàlla jëmal ci kanam mboolem ku fi ñëw di sàkku dara yàlla na ko yàlla faj di ñaan nawet bi ñu tàmbali itam insha allahu xaw naa yeex waaye yàlla na ko yàlla def nam defoon nawet daaw wala mu gën ko lii mooy kàddu gi nga xam ne naa Lo ak ki nga xam mooy sa jiw su mbay di dellu santaat ñëpp di ñaan yàlla diwal ak jàmm ñu daje fi daje bu dàq bii yàlla ko yàlla def allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jazakum la na xeer allama al qur'an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 ci wuy su rafet gi nga xam ne wuy si ngeen ko woote bi nga xam ne association bi ngànk ñi jànge woon daaray kokki ah, ñi koy woote te li ko wund lépp mooy ñu jóg pour jàppale daara ji jàppale sëriñ bi jàppale ñi koy jàppale ci liggéey bi jàppale ndongo yi lu lépp pour lan pour njàng mi gën a baax pour nekkin wi gën a yiwee waaye pour liggéey bi gën a am résultat yu gën a baax waaye loolu lépp nekk pour ñu pour daara ji continuer ci former ay jaami yàlla ci ay xale yu góor ak i xale yu jigéen formation boo xam bi dana jël seen wàllu diine ci wàllu roox bi defar ko ba mu baax na mu war a baaxe wala boog ba mu tege ci yoonu baax àgg ci perfectionnement ci wàllu roox yombut waaye itam waajal leen ba seen àddina itam ñu xam ni ñu fiy nekke waaye waajal leen ba ñu xam ci seen biir réew ni ñu fiy nekke waaye waajal leen ba ñu xam ci àddina bii nga xam ne tey ah, li ñu tuddee globalisation ci lañuy ñuy dund ñu tuddee ko village planétaire ñu xam nan lañ fiy nekke di dund seen diine di dund ci àddina di nekk ay exemplaire yoo xam ne yii ah, ku leen gis xam ne kii ku alxuraan defar la loolu nag mbir la moo xam ne képp ku dib jullit war na laa ñor fépp fu jullit yaakaar ne mënees na faa jàpp ba ñu liggéey fa liggéey bu tabax ndawal jullit ci jamono ji ñu nekk ah loola jullit ñëpp war nañ koo yittewoo ndax li ci des lépp ah, àdduna bi kenn mënatu koo arrêté développement ni mu ni muy ni muy ni muy de avancé kenn mënatu ko arrêté ni nit ñi duggantee kenn mënatu ko arrêté médias yi li ñu joxe gudd ak bëccëg kenn mënatu ko arrêté waaye li nit ñi mën a am tey mooy ñu agir ñu liggéey ci nit nit ki nga xam ne kii moom mooy jël mooy bàyyi ñu defar ko bu ñu defaree nit kooku lu mën di ñëw dana ko dékku ah, te exemple bi itam ne mooy jamono ju nekk lu jamono nëx nëx lu jamono jaxasoo jaxasoo ñi nga xam ne dañu leen a teg yar leen ci leeru alxuraan yar leen ci leeru sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fuñ mën di nekk ci secteur d'activité ci àddina bi loola dana ràññeeku seen dund te ab jullit lu la lu la war a nekk parce que loolu rek lañu ma nekk ba dund seen jullit ba dund seen diine ni ñu ko war a dundee loolu rek moo tax ñu woote woote bi xam ngeen ne actuellement daara ji président junj na ko léegi trois mille huit cent cinquante trois mille 582 élèves ñi ngi fi ci ay ay góor ak i jigéen ci biir ñooñu plus de 200 plus de 270 ñi ngi fi ci ay étranger ci réew yi nga xam ne ñoo ñu wër ah ñun ñëpp nag daara ji di leen jàngal te du leen laaj dara di leen dëkkal te du leen laaj dara di leen faj te du leen laaj dara di toppatoo seen lépp te du leen laaj dara. ñu fiy jàng ba mokkal alxuraan jàng fi ba am fi certificat am fi brevet am fi bac ah, ñu leen lambal daara ji du yem foofu waaye daara ji di leen lambal ay bunt ci biir réew mi ak ci bitim réew mi fépp foo xam ne fii xale mën na faa ja ah, mën na faa jaare ba defar formation léegi ñu wutal ko bourse yi demee noonu ñu doon nii ay dizaine ay dizaine voire des centaines ci suñu étudiants yi ñu ngi ci réew ci monde arabe bi di jàng ni ki nga xam ne ñenn ñi ñu ngi ci biir réew mi ah di jàng ci école supérieure yi nga xam ne ñoo fi nekk pour wan na rek liggéeyu daara ji fi mu toll actuel ren ji bac bi nga xam ne moom la office di bac di di def muy bagu arabe bi nga xam ne gouvernement moo ko organisé léegi daara ji seen candidat yi bañ ci participer am nañ taux de réussite de 84 virgule 6 pour cent dafa naa ne kon ah, loolu lépp dana tegtal ne kon ah, alxuraan yar bu mu lal ah, borom lépp luñ ko luñ ko bëgg a waajalati loolu ba boobu mën na ko yem liggéey bu toll noonu nag daara ji di ko liggéeyee yoreel ko réew mi nii mu ko yore ñun ñi fi sa tey ñi fi nekk ciy dongo représenté réew mi yépp ci sensibilité yi mu am yépp gox yépp nekk fi xeet yépp nekk fi ah kuréelu diine yépp nekk fi këru diine yépp nekk fi association islamique yiy yëngutu ci biir réew mi ah, moo xam ci ah, association yi la wala ci ayima yi imam yi ak ñiy yëngutu ci ci ci biir l'islam ci biir Sénégal yépp ku nekk sa njaboot a ngi kokki ku nekk ku nekk ci ñoom njabootam ngi kokki léegi nag daara ji taxaw taxaw mel noonu lii rek mooy ndaje bi nga xam ne mooy journée bi ñu tuddee ko journée de solidarité bés boo xam ne dañuy jàppalanteeg ah, daaray kokki jàppalante bi nekk ci ñaari anam benn anam bi mooy ñu laaj yëgle ko laaj ay ndimbal indi ko lañ fi daje ci ay ndimbal ñu jox ko ñu jox sëriñ bi beneen anam bi mooy ñu continuer di xamle daara ji di ko xamal nit ñu baax ñi waaye itam di saytu ay tëralin yoo xam ne buñ ci jaaree liggéeyu daara ji gën a baax ci biir saytu yooyu nag association bi am na ci ay xalaatin yu bëree bëri bokk na ci ay projet de développement yoo xam ne mi ngi ciy xalaat ne bu ñu ko taxawalee dana am lu cay jóge di ñëw ci daara ji xam nga daara ji fii ci Kër Momar Sarr am na fi plus de 40 hectares yoo xam ne buñ ko bayoon ak technique ya ci war dana mën a indil daara ji lu bëree bëree bëree bëri ci biir Dakar ñu ngi fa am ay projet de waqf dana am ku ñëw waxtaan ci waqf fi dañ koy junj rek waaye waqf bi moo euh, moom itam lañ ci jublu mooy dëgg la ñi nga dajale ay ndimbal waaye ñu fexe ba am yu sax yoo xam ne yi sëriñ bi jàngalekat yi mu jël ñuy jàngale ci biir daara ji mu leen di fay ñuy jàngale mu am loo xam ne nii ëllëg ñooñu bu leen di fay du xaar ndimbal ñëw mu doog leen fay waaye dina am ay ressources financière yu sax yoo xam ne dana ci mën a sukkandiku ba yenn euh, euh, dépense de fonctionnement yi moom nekk loo xam ne dana am assurance ak continuité boo xam ne dana mën a dana dana mën a continuer kon waqf boobu itam projet yooyu ñu ngi ciy yëngatu bu baax a baax a baax beneen mbir bi nga xam ne moo ji des ci yëngatu yi daara ji mooy kaddu googu maa ngi koy jëme nag ci képp koo xam ne doomu daara ji nga yàlla baaxe la daara ji yar la defar la ba ba nga defaru bay defare ak foo mën a nekk ci réew mi nga taxawwaat nag fu teekuwaat gembuwaat ndax itam wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusalun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko son jooram joxee alquran waa makka ak ña ñëkkoon a gëm ci jullit ñëpp alquran nekk seen teraanga joo xam ne ji amuñ teraanga ju ko mas a mel te am ju ko mas mel ba ilaa yawmi diin suñu borom ne ko nag ah teraanga la de yaag sa xeet wi waaye teraanga ji nag ëllëg danañ leen laaj nan ngeen ko def bu ñu waxee kokki wax lam liggéey wax ni mel ci réew mi ñi kokki defar ba ñoom ñu yëg ne am nañu defaru ñooñ ñoom ñoo gën a war a taxawaat ñëpp bu fekkee mënuñoo fay lañ leen leble lañ leen lebaloon it ñu yëngutu ca yëngutu ca bañ xam ne ñu ngi ci yëngutu kon léegi la appel boobu maa ngi koy lancé ci képp koo xam ne jànge woon nga daara ji foo man di nekk nga jóg taxaw te taxawaay boobu mu bañ a nekk ay taxawaayu individuel ñu fexe ba mu taxawaay collectif fu ñu nekk mbooloo mbooloo nekk fa nekk ay groupe euh, d'action yoo xam ne dañuy ànd di liggéey ndax liggéey ba gën a barkeel loolu ci association bi dafa naa ne ñaari at ñetti at yii ñu weesu wax dëgg yàlla section yi bi ñu dunduwaatee bi ñu dundaatee ku ne xam ne ne euh, ay njariñ yu bëree ngi euh, dafa naa ne ndar daanaa dee ñaan Saint-Louis indi nañ fii deux cent mille toujours damay joxe exemple ndar ñoom Abdou Khadir Diak jiite section ba indi nañ fi cent cinquante mille indi nañ fi deux cent deux cent mille mais ba ndar organisé ak léegi ay millions lay indi parce que booba ay benn benn ñoo doon defar léegi nag ab groupe ñooy liggéey léegi saa bu ñuy jógee ñi la jógee ndar di ñëw bu ñëwee ay millions la ñuy compté waaye muy compté tuñu ay junni loolu nag day wane rek mbooloo mu ànd di liggéey section Dakar ren jii la judduwaat ñu tabaxaat ko yëngalaat ko waaye defe naa ne ñaari weer yi ñu génn lu jëm ci facture courant bi nga xam ne dem na ci deux millions neuf cent quelques mille ci par ñaari weer ñu ko fay ñaari factures yu mujj yi xale yi ñu ngi taxaw weer wu jot kenn ku nekk am loo bind ñu dem andi ko bu ko defee loolu ñu ciy jàppale sëriñ bu baax a baax a baax loolu nag day day wone rek ne liggéey kenn ku nekk nga ñaq génn ci saw ñaq dara joxe baax na lool waaye nag nga ñaq génn ci saw ñaq joxe ba noppi ànd ak nit ñi di laaj bi yëngutu ngir ngir mi gën a baax loolu nag moom mooy mooy mooy la gën a baax nekk waaw saalih baax na nga nekk nit ku baax waaye nga nekk moslih nga baax ba noppi di baaxal nag moom mooy li nga xam ne moom lislaam di digle ah loolu sunna su yàgg la ci daara ji bu ma ne sunna la la ci daara ji nag ci hadis laa ko teg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man sanna sunnatan hasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama laa yanqus dalika min ujurihim shay'an képp ko def te defin wu baax ay nit roy la ca mbaax googa Ah, mbaax mbaaxu googa lu ca nit def ci lu baax danga nga am loola ba noppi ñooñu du wàññi dara ca seen ca seeni ca seen lu baax la ñu defoon fii ci kokki nag dama naan lu mu gàtt-gàtt waras na fee mën a jànge ci def lu baax ñetti sunna sunna bi ci njëkk mooy suñu Ahmad Saxiir Lo mi toog di jàngale alxuraan di yare ngir yàlla kooku di royukaay ci loola nga xam ne ci la nekkoon ah, duñu dugg ci détails yu dana am ko waxtaan ci suñu Ahmad Saxiir Lo waaye ba ca tegee mooy sunu bàyyi alaaji aatu xulle yàlla ko yàlla yokk leer fa mu tëdd moom mi nga xam ne nit yàgg naa liggéey ba am dara ci ñaqam seet kuy def lu baax mu jox ko ko waaye nag commerçant bu jóg joxe ciw ñaqam ba noppi nag solo dàllam topp nit ñu baax ñi ku mu xam ku baax mu dem laaj la wët ndimbal yooyu ànd ak moom moroomi commerçant am ñu ñëw saytu ko di ko jàppale sëriñ bi daara ji di dunde loola ñu ñii ñëpp ba ñuy ba ñuy jàng ñu nekk ci loola sunna soosa loolu mooy li nga xam ne moom kenn xamul ak fayam fu mu yem ndax la doon joxe xam nañ fa la mu toll waaye luñ fi mën a taxawati ci mbaax ba ilaa yawmi diini lu jëm ci luy dundal luy dundal xale yi luy defar daara ji kooka la mu doon def moom ñi ko doon ñi ko ci doon jàppale ñëpp seen fay di leen fekk foofa kon ñun tam ñu war a góorgóorlu ba sunna suus ñu gën koo dundal bu baax a baax a baax sunna modernisation daara moom itam laaj ma xëre kay tàmbalee ko fii ci kokki muy loo xam ne dafa war a lal ci Sénégal gi yépp fu mu borom man mën nekk fu borom kattan nekk di gis daara daara ju baax di fonctionner na mu war a fonctionner mu am yëg-yëgu ne daara yooyu da ko war a defar ba nekk ci condition yu baax a baax a baax alaaji ma sey yàlla ko yàlla lekk leer fa mu nekk sun na suusu defar daara ba mu dàq sa kër defe naa ne ñu ko ko njëkk def ci Sénégal gi ah man sama xam-xam amu ci te itam biir Sénégal biir réew mi ci boppam li mu defal daara alxuraan bu ñu ko wër ci àddina ñi ko ko njëkk a defal daaru alxuraan du ñu bëri waaye loola nag duñ yemar ci rek ne alaaji ma xëri dee baax dëgg la am na ñu koy topp ñu koy roy waaye loola itam dafa war a tasaaroo ba daara yi ah buñ jàppalante woon ci biir réew mi nañ war a jàppante yépp danañu génn dëkk bu nekk kañ ci bu nekk danañu yor daara ci yoreen wu rafet woo xam ne wii ëllëg kenn du xool daara di ca gis looy sikkal wala nga gis nga di ci looy looy di waaye nag Ah, ñun jullit ñi Sénégal ñun jàmbaar lañ ci suñuy action yoo xam ne kenn par kenn moo koy def waaye ànd booloo defar loo xam ne lii day dëgër te taxaw ñu jàppalante ci wax te mu continuer loolu moo xaw a des ci suñu dundin léegi loolu itam war nañ cee góorgóorlu baax a baax a baax bala maa jeexal may wax ne képp koo xam ne dangay ngaa jànge woon kokki te yàlla def ngay liggéey ci fonction publique sa salaire di jaar ci direction de la solde am nañ code destinataire boo xam ne ministère des finances accordé nañ ñu ko ba képp ko nekk fonctionnaire ah boo mënee sa participation sa cotisation yi booba ngay def mën nga bindu weer wu nekk ñu jël ko ci salaire directement bu dem ci compte bi loolu nag yemul ci ci waa daara jële tàmbalee waaye du yem ci ñoom ah campagne la boo xam ne bii dañ koo ubbi pour ñëpp ndax loola moo xam 1000 francs la moo xam moo moo xam euh, euh, ci 1000 francs lañ koy yemalee yemaleegun pour le moment waaye 1000 francs yooyu nga xam ne euh, mensuellement weer bu nekk mi ngi dugg loola bu demee ba bëree ba bëri incha allah dana am yenn jàmbat yu ndaw ndawaan yoo xam ne yi bu ñëwatee sëriñ bi doon ko mën a sakk te xaar ba ndimbal yi nga xam ne at ba at wala par période lay ñëw ci biir daara ji loolu lépp ñu bokk ci góor góorgóorlu ñu bokk taxawaat bokk taxawaat di sant nekk Ah, mboolem association islamique yi nga xam ni wuy si nañ bokk ak ñun bés bi di sant mboolem organisation islamique yi nga xam ne wuy si nañ bokk ak ñun bés bi waaye di sant mboolem imaam yi nga xam ne jóg nañ taxaw ak daara ji ci seeni juma ci seeni émission yi ñu def ci rajo yi ci seeni xame di yëngal lépp loo xam ne lii rek dafay jëm ci ci daara ji pour liggéey bi gën a dox pour liggéey bi gën a rafet ñun ñëpp ñoo leen di sant wax dëgg yàlla ah wax waaw wax dëgg yàlla ah ab seen daara wax ci moroomam seen daara lu rafet loolu moom nekk-nekk daana am waaye wax dëgg yàlla li nga xam ne sëriñ daara yu bëree bëree bëri ñu ngi koy taxawee ci réew mi ñoo xam ne jànguwuñ kokki ah, amuñu lu jàngi kokki sax mën naa am ndax seeni daara li nekk kokki ma nga fa waaye ñooñu ñëpp ñu bëri ci ñoom bu daara kokki wootee ñu xam kokki ak feen bi toll ak problème yi daa seen daara di am yëpp ak li ñu am ci ay difficulté li ñu am ci ay soxla ñuy dajale ay ndimbal di ko yenu di indi kokki dëgg-dëgg ah, ah, modèle la exemple la boo xam ne bii bu jara bu jara bu jara weer la bu jara wane ci ci réew mi ñu toll ndax kujjee mi ngi bëgg a tas réew mi kujjee ak kujjee mi ngi bëgg a tas réew mi xëccoo mi ngi bëgg a tas réew mi ñooñu sëriñ daara nekk modèle lañ ci ne nit li ko yitteel mooy lu baax ak di baaxal ak fu baax mën a jóge waaye baax ak baaxal rek moo ko yitte bu ko defee fu baax nga xam ne baax na nga jàpp ci ci na ma ne te bañ wujje bañ a xëccoo ba mu yàq ba mu yàq réew mi te réew mi ku ku wax dëgg seetlu xam ne réew mi kujje mi ngi koy bëgg a yàq kon ñu doon leen leen ndukkal bëri nañ bu ma limee wolof daf ne ku lim ku lim ci um waaye defe naa dañ daan bu fekkoon mën nañoo dem dem dem ah, lim ay ndimbal ci loolu dana ki waaye lu mu gàtt gàtt ma joxe ci ñeenti exemple sunu yaay Adja Binta Thiaw sunu tanta ca daaraam ji dafay indi lu bëree bëree bari ci ay ndimbal Oustaz Alioune Sall naka noonu te daara la yore Serigne Daara la Ibrahima Khalil Lo naka noonu Serigne Daara la ah, naka naka sunu sunu sunu wada eh, eh, eh, waa mawridu zamaan suñ ba suñ ba alaaj njoogu faal moom itam borom daara la te moom itam nun lay liggéeye ay exemple yu bëree bëree bëri ñoo xam ne borom daara yoo xam ne bu soog bu kokki soxee dañuy wut seen battu joxe seen ndimbal topp réew mi di dajale pour indi lu doxal daara ji ñun ñëpp kenn amul seen fay yàlla rek moo am fay seen fay yàlla leen yàlla fay ñu góorgóorluwaat bu baax te xam ne daara alxuraan yi moo des ci garantie bu nit ñi yaakaar ne mën naa xett li jullit ñi ci mujj jamono ci yi fi nekkoon yépp ñu ngi fayit amut leneen luñ mën a jaar ba xettali réew mi xettali njaboot gi loolu ñu dundal daaray alxuraan yi dundal ñiy liggéey ci daaray alxuraan yi jàppale daara alxuraan ba def liggéey bi mu war a liggéey def ci njaboot gi bu ko defee ñu am njaboot gu baax gu dund lislaam boo xam ne gi danañ am yarub lislaam di am jikkoy lislaam wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasiran ينفقون ولا والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل jërëjëf kon min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa man istanna bi sunnatihi wa htada bi hadihi ila yawmi ddin mbokki jullit yi gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak waa këram ak i saxaabaam ñu ngi am mbégte di am contact kontante ci dajewaat ak suñuy mbokki jullit suñuy mbokki pas-pas ci bërëb bii nga xam ni mooy bërëbub alquranul karim nga xamante ni ren jii mooy fanweeri yoon ak juróom-benn ñu ngi am mbégte ci loolu bu baax a baax di sant yàlla bu baax a baax ci baaxe gi mu ñu baaxe ñu fekkewaat ko ñu war a wax ci loo xamante ni yaakaar nañ ni yàgg nañoo taxaw fii di ko wax ak di ko leeral a ñi ma jiitu yaakaar naa ñenn ci ñoom am na ñu ci jun ñu ci ñoo xamante ni junj nañ lenn ci li nga xamante ni moom la daara ji tegoo ci ay charge yu diis ci ay charge yoo xamante ni laaj na ay loxo yu taxaw laaj na ñoo xamante ni ñooy taxaw saa su ne sudaara ji soxlaa ci ci wa fànn bu mënti doon ñu mën ko ca féete comme nag ñun ay jullit lañ ci alquran ak sunna lañuy tënku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu ñu lum ñu jàngal ñu jànge ko ci ak dundam jànge ko ci dunduk saxaaba yi jànge ko ci dunduk ñu baax ñi loolu mooy lan mooy bu ñu jàngee alquran danañ ci gis yàlla suñu boroom di junj ci ay aay yu bari naan ku may lebal ma ma fay la ba wis la man da alladi yuqridu allaha qardan xasana fa yudaacifuhu lahu wa lahu ajrun loolu dañ koy gis ci alquran dañuy gis ci sunna tamit ay ahadis yu bari yoo xamante ni dañuy ñaaxe ci def lu baax yu baax yi nag dañoo bari lool waaye daf cee am yoo xamante ni dañoo amuk jagoo bokk na ci yi nga xamante ni dañoo amuk jagoo li ñu tudde al waqf al waqfu ni ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale mooy li ñu tudde sadaqa jaariya mooy sarax boo xamante ni day continuer maanaam nit ki bu fekkente ne def na lu baax yool ba mu ciy am da kay am ci ak dundam waaye bu génnee àdduna tamit ba nekk àllaaxira yool booba day continuer ba keroog bis pénc sadaqa jaariya boobu nag boroom xam-xam yi biñ ko càmbaree dañ cee du dañ cee dugal wala dañ cee génnee lu ñu tuddee waqf fu nag bu ma ko doon tënk mooy loo xamante ni dañ kaa amal ci bërëb ngir lan ngir mu taxawu lislaam ngir mu taxawu ñoñ lislaam ngir mu assurer projet yi nga xamante ni lislaam da kay naal ca kanam ak ca kanamam comme daara ji nag ni ma ko waxee maanaam tënku gi muy tënku ci alquran ak tënk gi muy tënku ci sunna ak di jéem a dundal lépp loo xamante ni saxaaba yi dundoon nañ ko yonent bi sallallahu dundoon nañ ko ñu dem ba jëmmi jamono ñu gis ni kat ndax naam lii ñuy def nii baax na at mu jot ñu dugg ci réew mi sensibilise jullit ñi soññ leen ñaax leen woo leen ci liggéeyub daara ji loolu baax na waaye nag am na lu gën a baax li gën a baax mooy lan mooy bu ñu fexe ba daara ji am ay institution financière yu garanti yu rentable yoo xamante ni yu durable lay doon bu ko amoon nga xamante ni yenn charge yi nga xamante ni daara ji da koy féetewoo loolu dana ko woyefal xalaat bi Cheikh Ahmadou Saxiir Lo rahimahullah moom yoroon na xalaat bi ca ba muy ba muy sañ ci daara ndax da daan joxe misaal ci genn kilifa gu mag gu ñuy wax alaaji góora ca Saint-Louis alaaji góora dafa tabax jàkka wala juma ba mu tabaxee ba noppi laaj borom xam-xam yee ñu ni ko des na liggéey bi baax na waaye des na ñu mu ni leen lu des ñu ni ko gat jàkka day ràpp li li nekk ci jàkka ji day ràpp li ñuy jëfandikoo ci ràpp jàkka ji day ràpp te daal daal laaj jamono ju nekk ñu koy beesal te loolu kon kon war naa am loo xamante ni danañ xam foo xamante ni fu wóor la fu muy jóge lu sikk ci jàkka ji ñu mën ka caa euh, joyanti wala ñu mën ka caa defar loola nag Cheikh Ahmad Sakhir Lo junj yim junjoon ñi nga xamante ni ñoom la bàyyi ginnaawam ñu ngi dox ci anam gu rafet pour jéem a jëmmal loolu depuis 2006 daara ji dafa am yéene taxawal lu ñuy tudde al waqful islaami mooy benn institution financière boo xamante ni daara ji moo koy moom la fay jugge jóge la fay juddoo di mën a dellu siwaat ci daara ji di mën a assurer fonctionnement daara ji loola nag depuis 2006 ñu ngi kiy dox mbokk yi nga xamante ni ñoo génne woon ci daara ji ak ñi nga xamante ni ñoo bëgg lu baax lépp ñu ngi ciy dugal seen loxo ba liggéey bi fi mu nekk nii am na fi mu toll fi mu toll mooy lan depuis 2006 daara ji mi mu commencé li mu waxoon mooy dafa bëgg a am ay kër yu mag a mag ay immeuble yu mag ca Dakar loola dox na ci ay jéego ba yàlla defal ko ci tawfiq ci yenn yi daara ji am na kër gu mag terrain bu mag ca waagu ñaay Dakar am na terrain bu mag ca Liberté 6 te lii yéeneem mooy bu demee ba am mooy yoo xamante ni mooy yu mat la yoo xamante ni dana mën a jàppanal liggéey bi mu taxaw mu taxawal fa ay immeuble yu mucc ayib yoo xamante ni bu ma bu àggee xëy na dañ koy luye xëy na dañ cay def loo xamante ni dana mën a jur loo xamante ni day dellusiwaat ci daara ji di dellusiwaat ci sëñ bi di delluwaat ci di dellusiwaat ci doxalinu daara ji niki noonu daara ji ci li may wax nii ci liñ jot a dajale ci li jëm ci wàllu waqf bi daara ji fim nekk nii am na projet kër goo xamante ni tàmbali na ma nga nekk ca golf kër ga daara ji lim ci yéene mooy tàmbali tàmbali wan nit ñi ni liñ doon dajale ñu ngi koy tàmbali jëmbal ci ay tabax ndax foofa lañ ta foofa lañ bëgg a tàmbalee commencé nañ ko liggéey ba liñ bëgg bu àggee ca anam ga nga xamante ni mooy anam nga gën a rafet ñu koy luye ay magasin nga ca ay appartement nga ca bu àggee ñu koy luye la fay jóge di dellu siwaat ci daara ji waaye nag xëy na terrain booba nam war nañ ko nam nam war a toll toll ko terrain ba nekk waagu ñaay ak terrain ba nekk liberté 6 moo gën a yaatu fuuf foofa bu fekkoonte ni am nañ ñoo xamante ni dañuy taxaw àndandoog daara ji ci liggéey boobu ñu liggéey ko yaakaar naa ni am na ñoo xamante ni danañ jug jamono bu nekk di dox di wax ak seen tànk yaakaar naa ni loolu dana wàññeeku kon ñu ngi ciy woo jullit ñépp ñu ngi leen woo ci waqfu bi nga xamante ni li ko tax a jug mooy daara ji dem ba mën a doxal boppam daara ji mën a dem ba du tàllal loxo kenn naan ko kaay dimbali ma ndax bari na ci àdduna bi surtout ci monde islamique bari na luy dox loo xamante ni la kay doxal mooy ay awqaaf boo demee fu mel ni màkkatal mukarram jàkka ja la muy rëy rëy rëy rëy la koy doxal mooy ay immeuble yoo xamante ni jàkka jaa ko moom boo demee madinatul munawwara noonu la mel boo demee Qahira ca Égypte noonu la mel boo demee Xayrawaan noonu la mel boo demee Bagdad noonu la mel xalaat yooya nag nga xamante ni ñoom la mbokk yooyu amal xalaat boobu la ñu bëgg mu am fii ci daara ji dëgg la fan yii ñu ngi dégg ci assemblée nationale ñu koy rafetlu lool projet de loi boo xamante ni wote nañ ko mu jëm ci wàllu waqfu ñu ngi koy rafetlu lool waaye nag ñu ngi ñaan mbokk yi yi nga xamante ni ñooy député yi nekk à l'assemblée nationale ak membre gouvernement yi ñu jokkook ñi nga xamante ni bu yàgg ba léegi ñu ngi def ay jéego ci wàll waqfu di ci dox di ci wax ba amal ba jot cee am ay réalisation ñu jokkoo moo ñoom jàppalante ak ñoom ci li nga xamante ni jot nañ kaa jot nañ kaa réaliser ci yooyu nga xamante ni mooy ay projet yu aju ci waqfu kon li ñuy wax rek mooy ak kaddu gi kaddu soññe la kaddu ñaaxe la ñu ngi woo mbokk yépp ci képp koo xamante ni mën naa jàppale daara ji ci suuf mu def daara ji suuf si mu am képp koo xamante ni mën na kaa jàppale ci mu tabax ko ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi koy woo niki noonu li ma fàtte woon mooy daara ji am na ca kër Momar Sarr lu toll ci 40 hectares yoo xamante ni li li nga xam mooy yéene daara ji buñ demoon ba am man-man bu ko mën a defar bu ko mën a toppatoo ñu koy bay ci li nga xamante ni moom la bay laaj lépp ci fànni bay yépp ñu ko fay bay la nga xamante ni dafay mën a dellu si ci dunduk xale yi ci dunduk daara ji mu fiy dellusi kon mbokk yi kàddu gi du mën a gudd ndax dañ ñoo wax ñu tënk ñu ngi woo jullit ñi di leen wax ni yàlla suñu borom nee na wal tanzur nafsun maa qaddamat li xat suñu borom nee na doomu aadama na xool lan la jiital ngir ëllëg lan la bàyyi ngir ëllëg lan la versé ci kortam ngir ëllëg compte yooyu dara weesuwu ci lu dul verser fii ci waqfu bii nga xamante ni nekkul lu ñuy donn nekkul loo xamante ni nit da koy moom waaye alalu yàlla suñu borom la kuy lebal nag nanga lebal yàlla ndax yàlla ku ko lebal dana la fay ba bonis la man da alladi yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaa'ifuhu lahu wa lahu ajrun karim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi yooyu nga xam ne moom la fi ñëwee kon ñu jox xale bi mu jàng alquran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 ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من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 رزقناكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم xam ngeen nag nit ñi bëri nañ mbooloo mi bëri na moo tax xat-xat bi bousculade bari na bu ko defee kenn ku nekk rek nga jëm a veiller bu baax a baax sa sa poche ak sa sa téléphone ndax ñëpp yemuñu gars yi ñi ñu wax ne ñiy gàmmu ak ñiy ras dem bokkuñu ñu bàyyi ci xel monsieur le maire. Vous avez la parole. Merci. A'uuzu rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. La hawla la quwwata illa billahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Mbokk yi ñoo ngi nuyu kenn ku fi teew sa tur ak sa sant. di leen bismillah di leen dalal jàmm fii ci institut islamique bu Koki nekk ci chef lieu de la commune de Koki. nuyoo bi ñu ci jiital suñu màgg suñu sëriñ suñu walëree sëriñ Matar Narlo di ko ziyaara ci bis bu màgg bi di ko tàggal te di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal mu yàgg ko taxawe yàlla kàttanal ko ba lépp li mu nisar ci daara ji mu mën koo def ba def ci lu kawe njortam defe naa ne moom seede yi ma ñi jiitu wax ci moom doy na ba mu jotee daara ji fu mu fekkoon benn def na ko fukk fu mu fekkoon fukk def na ko téeméer lépp ful na ko yokk na ko mujjewul poussé bi mu réer kon ñoo ngi koy jaajëfal di ko nuyu bu baax di nuyu ñëpp li koy jàppale ci daara ji di nuyu ci turam kilifa di diini fi teew yépp bàyyiwuñu kenn di nag nuyu suñu délégation officielle bi fi teew teewal fi le président de la république euh, son excellence euh, Macky Sall ci turu Adja maria massar ministre de la femme di ko nuyu bu baax di ko jaajëfal te di ko souhaiter la bienvenue ak Koki moom ak délégation bi mu àndal yépp te ñu mën cee ràññi le gouverneur de la région de Louga le préfet de la région de Louga les services régionaux départementaux ak euh, compagnie gendarmerie de Louga ak commandant brigade de Koki ñoom ñëpp ñoo ngi leen nuyu bu baax. di nuyu suñu xarit yi député Merry Sylla ak Moustapha Cissé Lo vice-président à l'Assemblée nationale di nuyu conseiller économie sociale Mame Koumba Ndiaye di nuyu Sélé Meyssa Ndiaye chargé de mission à la primature di nuyu góor jigéen mag ndaw bàyyiwuñu kenn euh, discours bi du gudd li ñuy wax rek mooy sant ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ indi seen alal indi seen kattan jàppale ci liggéeyu yàlla bu mag bi nga xam ne moom lañ fi taxawal di ñaanal képp koo xam ne ñëw nga fii yàlla na la yàlla fay yiw ba fay la lu ëpp sa njort di ñaan loo fi waaye def yàlla na ko yàlla wutal lu ëpp loola ba nga xam ne heure bu ñëwee man la mënoon la ko jiitu woon li ci topp mooy di soññewaat soññewaat bi ñi ci jiitu mooy l'état du Sénégal moom la éducation nationale war kon nag su daara ji toogee yor éducation nationale di ko ci jàppale te lépp nekk loo xam ne kenn fayul lépp gratuit la kon dañuy wax ñoom tam ñi ngi jàpp naam waaye nañ gën a jàpp gën a jàpp bi mooy defe naa ñi wax fii léegi wax nañ ko waaye nag comme ñun ñooy nekk maire porter la doléance des populations il faut ñu delluwaat ci mooy daara ji charge rëy na lool chargé li ci jiitu mooy facture d'électricité bi waxoon nañ ko fi dañ ko waxaat état war na cee jàpp bu dee exonération la bu dee façon bu ñu ko mën a jàppalee la ñu jàppale ko ci bu baax jàppale ci vivre yi parce que daala ji taalibe yi bari nañ te dund bi yépp sëriñ bi la war kon nag war nañ ko jàppale bu baax ci luy dundal taalibe yi li ci toppi mooy wàllu wér-gi-yaram poste de santé mi ngi fii waaye médicaments yi aussi dañuy soxla ku ci jàpp ba daara ji mën a faj taalibe niñ ko soxlaa lépp loo xam ne mooy wàllu ndox forage bi moo koy doxal forage bi aussi courant lay utilise facture bi day élevé loolu lépp war nañ cee jàppale daara ji ba liggéey bi jëm kanam bu baax loolu daal lañ bëggoon a soññaan ñëpp di ñaaxaan ñëpp di ñaanal ñëpp ñu delluwaat ci jàmm di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah aoudu billahi min asheytan rajim bismillahi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran euh, madame la ministre ci turu association bi boot ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàng daaray Koki ñoo ngi lay dalal jàmm di la wàccuwaay wàccuwaay bi gën a rafet bi yelloog maqaamam ki nga xam ne moo la yoon di président de la république yow ak délégation bi nga àndal yépp balaa ñoo jox kàddu gi Serigne Fallou dafa amoon rek ay benn benn baatu cant yoo xam ne itam bëggoon nañ ko yëkkati comme ñun ñoo nekk seen diggante gouvernement bi ak daara ji ñooy bind ñooy ñëw ci yéen ñooy dem di dellusi li nga xam ne gis nañ ko ci ak yombal ak ak jàppande mu jóge ci président de la république ak ci guvernement am ah, muy mbir yoo xam ne yi yu rafet rafet la ñoo ngi ci sant bu baax a baax a baax daara jàng leen ci sant mbooleem mbootaay mbooleem ñi nga xam ne ñi nga jàng woon daaray Kokki itam ñi ngi leen ci sant di leen ñaanal bokk na ci lenn rek yoo xam ne yi mënees na koo junj bu weesoo appui bi nga xam ne bii état bi doon defoon na ko ci at yële ci wàllu personnel enseignant bi ah, ñuy sant ñu ko ci sant bu baax a baax a baax di di la xamal ne incha allah sëñ Fall dana ci ñëw ak yow nga xamal président de la république ne ko ñi ñu fi affecté woon ci jamono Abdou Diouf ci année quatre-vingt yi ñu bari ci ñoom léegi ña ngay dem retraite te ñetti dem nañ ci retraite fi mu toll ma am ñaar ñoo xam ne suñu borom dafa def ñu wuy seen borom te ñooñu ba bés ni ko tey kenn remplacé gu leen ci liggéey bu rëy bii nga xam ne moom lañ doon liggéey ci daara ji di ñaan mu bokk ci li nga xam ne danga nga ko jotal président de la république waaye ñu ñaan ñu koy sant itam ndax bindoon nañ agence nationale des énergies renouvelables te monsieur Jibi njaay jiite ko ne ko daara ji facture courant bi facture bimensuelle bi mi ngi toll ci ay deux millions cinq cent jàpp deux millions neuf cent mille par mois ci loolu agence boobu nee na moom dana jéem seet ba xam ci wàllu énergie solaire nan la ciy jàppale daara ji yónnee na fi ay équipe ay ay équipe technique ñëw nañ fi ay yoon yoon projet bi mi ngi en cours ñuy ñaan itam ah, ngeen gën cee jàpp président mu gën cee jàpp ah, premier ministre ak gouvernement am ñu gën cee jàpp ba agence nationale yéen a juuju mu am ci installé fi énergie solaire ci unité yi nga xam ne mën na koo def ci biir daara ji ci loo xam ne dana wàññi facture courant bi mu jàpp ci bu baax a baax projet la boo xam ne bii bu yitteel daara ji la bu yitteel sëriñ bi la bu yitteel ndongo yi la ah, kon nga jàpp ci bu baax a baax a baax madame la ministre ah bala ma delloo kàddu gi itam dinañ sant itam as gorkat boo amee lu ko naqari war naa am fayda yi ne nàngam daf maa naqari waaye bu fekkee la mu doon jàmbat dafa am lu ca faju itam war naa am goreek kaw ko fajal mu ne ko jërëjëf ci loolu nag dañoo taxawoon fii ci kokki madame la ministre ne naqari nañu lool métti nañu lool ci gouvernement bi xale yi réew mi yépp mu leen di neexal ba mu des xale yi jàng alxuraan ñu waxoon fii ci sama kàddu ma waxoon ko ci turu mbooloo ni réew mi ki fi gën a ñàkki teggin te mooy ndaw si nga xam ne dana futti boppam taxaw ay góor yu ñàkk fayda di ko seetaan kooku sax république bi dana ko honoré dana ko teral dana ko recevoir mais ndongo daara kenn kenn boolewu ko ci mu métti woon ñu lool ñu joytu ko fii réew mi yëpp di ko joytu léegi bu ñëwee ba ci 2015 ñaari mbir am yoo xam ne yëpp seet na xelu ndongo daara yi dañ taxaw fii ne président de la jërëjëf dañ taxaw fii ne gouverneur am jërëjëf te jërëjëf ji fu ko dégg itam xam ne fu wér lañ ko teg bi ci jëkk mooy concours national de récitation de Coran dafa am fédération bi jiite ko fédération na bi nga xam ne moo jiite association yi nga xam ne ñoo lamb association yi yëngu te jàng alxuraan yëpp organiser ko ak société bi nga xam ne moo financé liggéey booba waaye bi mu àggee ah, ah, ñu ñu ñu profité ci gërëm fédération bi ñun dañ naa wax ne bu fekkoon ne loolu rek la réussir ci mandat la am réussir ci mandat am kon dañ naan moom réussir na mandat am ndax loola lu do musta am la te am na ci Sénégal kon fédération bi gàcce ngalaama ca kanam a kanam ca kanam a kanam fédération bi. kon madame la ñooña bañ demee ba ña ca gañe bañ leen di teral président yónnee fa délégation. waaye may leen audience teral leen teral seeni i kon fii ci kokki lañ ko jàmbatoon njàmbat loolu am lu ci faju kon dañ taxawaat fii ci kokki ne président Macky Sall jëf ci taxawaay boobu nga xam ne moom nga taxaw ci daara alxuraan beneen bi mooy ci sunu njàmbat loola dañ ne woon enseignement arabo islamique kenn tëniwu ko kenn boolewu ko kon bu ñu demee ba ren ci 2015 ah étude islamique nekk matière boo xam ne dañ koo jàppe comme toutes les disciplines bien am na yenn esprit yoo xam ne pas encore décolonisé ba tey loolu ma leen di métti waaye moom mu jël ne étude arabe islamique comme bac arabe la loolu dafa war a bokk ci concours général ñu boole ko ci ren ay xale bokk ca participer ca ah euh, gagné ñu indi leen teral leen ci devant toute la nation loolu itam. kokki kontaan na ci bégg na ci ndongo daara yi bégg nañ ci ña ngi koy sant lu bëgg mu jëm ci korom loolu dañ ne mënuñu la cee ñàkk sant wax sant googu itam nga jotal ñu ko président de la république te defe naa ne ah, loolu ndongo daara yi danañ ànd ak man ci baati cant yooyu ñuy tëj nag di ci baati cant di cant di sant baax a baax ah, monsieur Ibrahima Sall DG bu SICAP ci jàpp bi mu jàpp ci daara ji ak ndimbalam lu réeréer lu mu def jaarale ko ci ah, Euh, président assemblée président Moustapha Cissé nga xam ne ñun mooy sunu kudd wolof def ne ku am kudd lool ak te ñun mooy sunu kudd ci président de la république mooy sunu kudd ci gouvernement bi mooy sunu kudd ci assemblée lu ñu am soxla ci moom la ñuy jaar Ah, mu jàllaleel ñu ko ba mu àgg fa mu war a àgg kon kooku itam ñoo ngi ko sant di ko gërëm di sant ah, réaction bu bu bu généreuse boobu nga xam ne monsieur a Sall def na ko kon jërëjëf madame le ministre kaddu yi lañ ne woon dañ la ko déggal balaa sëñ Fallou ñëw di wax ci turu bi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam aahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ginnaaw bi ñu sante yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati suñu kàddu gi turu sëriñ kokki alxaaji Mouhamadou Xabaan Diop di nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi madame la ministre soxna Mariama Sarr di ci teg Moustapha Cissé Lo premier vice président à l' assemblée nationale di nuyu monsieur le gouverneur de la région de Louga di nuyu monsieur le préfet du département de Louga di nuyu monsieur le sous préfet de l' arrondissement de Koki nuyu Pape Diop maire la ville de Koki di nuyu député yi fi teew yëpp ak autorités yi fi teew yëpp ak conseillers économique sociale yi fi teew yëpp fàttewuñu kenn kenn ku nekk turam ak santam ñu ngi leen di nuyu. di leen nuyu bu baax a baax ki turu Serigne Kokki di nuyu Serigne Makhtar Naar Lo ki turu waa Kokki ak ki turu Serigne Kokki Serigne Makhtar. seen biir day nee woon na bu ñëwee nañ la jotli ay cant yu baax a baax yoo xamante ni bi lot na ci wax ko ndax ki sa taxawaay ki dëkk bi rawatina daara ji nga xam ne ni nga koy saytoo yéem na ñëpp parce que taxawa taxaw koo ko taxawaay boo xamante ni maanaam ni mu yokkoo ak ni taxawaay bi rafete loolu moom lot na ci pour ñëw di ko seedeel mbooloo mi sëriñ bi nee na mi ngi leen seedeel sëñ Maxtaar Lo day sant nañ ko ci ni mu taxawee ci dëkk bii di kokki ndax yàlla def na kooku tey jii képp ko fi am jafe-jafe wala ku fi am tawat wala ku fi sa bët xonq doo xalaat kenn ku dul sëñ Maxtaar lan moo tax ndax boo ñëwee seen maxtar tawat diis ko sa soxla soxla boobu lu mu rëy rëy rëy rëy dana ko taxaw kem kàttanam même bu ko mënul dana la boolee koo xamante dana ko taxaw ba soxla boobu saafaru loolu seen Maxtaar mi ngi koy def fii ci kokki kenn yëgul loolu nga xam ne li mu fiy liggéey kenn xamul loolu nga xam ne waa kokki sant nañ ko gërëm nañ ko ginnaaw loolu ñu ngi sant waa kokki bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci daara ji ndax ñoom day jàpp nañ ci ndax dëkk bi kër goo ci dugg lu mu néew néew ma ngi jàpp ci daara ji di fa dundal ay donga kon na nag ñooñu mënuñu leen a ñàkk sant ndax lii liggéey bi li mu réy réy seen loxo mi ngi ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm ginnaaw loolu ñu ngi sant suñuy sëriñ sëriñ Maxtaar Ndumbe Jóob nga xam na tey moo sancoon kokki te ba mu koy sanc lii rek moo taxoon mu sanc ko jamono yam koy sanc booba sancewu ko woon lu dul jàng ak jàngale doon jàngale alxuraan saxoo woon alxuraan bëggul woon dara lu xam-xam sancoon dëkk bi ñaanoon boromam ne sama borom alxuraan sax dakk kokki loolu ku ne xam ne nag boromam may na ko ndax ku tudd kokki kuñ ne kokki rek saxal li mu dem ci daara ji alxuraan loolu yàlla mooy ko dëkk beneen dëkk ndax buñ ne kokki nag la sa xel la sa mooy alxuraan lan moo ko may mooy ne ka ko mooy loolu ne ba muy sanc dëkk bi daf ko tudd woon madina te nawara la ko tudd woon tudd ko madina donga ya nekkoon doxa doxa dox ba yàq tur wi di ko tudde kokki nga xam ne loolu moo indi kokki mais kokki madina la ko moon maam maxtaan du ma sante woon loolu loolu tey yàlla dogal sëñ Mat Saxir Lo nga xam ne tey mbooloo mépp amal lañ ko cant ndax liggéey la ci Sénégal liggéey boo xamante ne bi kenn mënul koo fay ndax lii mu def ci daara ji nga xam ne ñëw sanc ko ci atum 1930 1939 ñëw sanc fi daara ji nga xam ne tey bu ñu wax Afrique daara ji fi gën a rëy fii la sëñ Mat Saxir Lo moo ko yore di ko saytu saytu wu gën a rafet ci saytu yu jàng formé fi ay nit ñoo xamante ne bi niñ leen formé fii ki Sénégal nit ñoo ne tey ñoo yor économie Sénégal ndax buñ ne économie Sénégal économie tey bu la dox doomu daara ya ko yor dongee daara yi tey gi li ñu li ñu seeree ci économie buñ ci génnewoon seen loxo économie bi nërmeelu te ñooñu moo leen formé ñii ñoo leen formé kon na ñii jaaru leen bu baax a baax état considéré leen jox leen seen considération lañu yaayoo ñu jox leen ko xam na seen place seen place ci Sénégal tey ñoo fi gën a yaayoo ñu jàppal leen ndax ñii ñu formé bu ñu leen formé wul woon tey dañu nekk ay bandi wala ñu nekk ay agresseur wala ñu nekk leneen kuy formé ñett junni dongo ak juróom benn téeméer nangam di leen formé at mu nekk di leen bàyyi leen ñu dem liggéeyal seen bopp kay kay doxee liggéey booba jaaroon na état jàppale ko ñi ngi sant nag état mi ngi jàpp baax xam nañ ne mi ngi jàpp ci daara ji waaye des na ndax ku ne xam ne sa kër gi nit yi nga yor dongo pour dundal leen la rawatina sëñ Maxtaar yor ñetti junni ndongo ak juróom benn téeméer nangam di leen jàngal di leen yor añ di leen jox reer di leen jox ndékki di leen saytu seen wér-gu-yaram kooku noonu loolu loolu kuñ ko dee xool état rek moo mën loolu kon nag état ñi ngi koy ñaan mu gën a dugal loxoom ci daara ji bu baax a baax mi ngi dugal nag waaye doyul ndax yayoowul yayoo nag daara ji état ñëw jël ndund bi gàddu ko ndax état moom la waroon ndax ñi fi nekk di fi jàng ay sénégalais lañ ay citoyen lañ ñooñu seen dund état la war seenu njàng état la war kon nag bu ko seen maxtaar gàddoo yor ko kon kooko yayoo na état jàppale ko bu baax a baax kon nag seen bi ñu ngi sant bu baax a baax madame la ministre kaddu yooyu bëgg nañ ko jot li ko son excellence président de la république nekkoon na jàppale daara ji rawatina daara kokki yi ndax ñii kat li nga def Sénégal buñ ko deful woon al Sénégal tey jii kon musiba am ndax alxuraan gi ñu jàng nii moo sowee Sénégal bu ñëpp bàyyi woon alxuraan tey musiba am kon nag ñi nga xam ne ñoo taxaw loolu nga xam ne tey buñ doon wax sécurité alxuraan mooy sécurité bi gën a wóor te ñi ñoo ko yore kon nag ñooñu yeeyoo nañ jàppale bu baax a baax nañ leen jàppale bu baax a baax ginnaaw loolu ñu ngi sant mbooloo mi fi teew ñëpp a gudd kenn ku nekk ñibbi waat ci jàmm ak salaam ñëpp delluwaat ci jàmm yàlla dajale waat ñu fi déwén kenn bañ a manqué képp ku fi indi tawat yàlla saafaru ndax bis bi bisu ñaan la xam dana ko may ndax bis bi moo ko toll noonu alxuraan moo liggéey loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.